société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may de presse tali na jàmm ñu ànd xëy yér yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi ko di jeex xëy diñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky ci samedi ji 31 ci discours à la nation ñoo koy xaara ngir nag mu wax lu leer nañi ci lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature ci élection présidentielle ndax jamono ji coow li bëri ci lool waaye tamit njiitu réew mi di Andu def na ko ci xaalis bi ñu jagleeloon coronavirus te gaa gis ci ay lu bala coow li bëri loola te rapport boobee yëngal dëkk bi waaye tamit moom njiitu mi di président Macky Sall ñoo koy xaar ci lu jëm ci wàllum dund gi nga xam ne maanaam dund gu la dund metti gi am ci réew meek yéen a kaay gi de Le xëy duñu xibaar naan lu jëm ci rapport Cour des comptes bii nga xam ne fësal nañ ko ci xaalis bi ñu jagleeloon coronavirus premier ministre di ñi nga xam ne ñooy partenaire financier yu Sénégal yéen a kaay gi de la témoin nee na société bi ñoom tey ji ci àjjuma ji danañu amal rassemblement bu mag fi nga xam ne mooy place de l'Obélisque ngir nag ñaawlu bu baax baax rapport Cour des bi nga xam ne fësal ko ci xaalis bi ñu jagleeloon coronavirus te ñu gis ay yoo xam ne doy na waar a kaay gi di Vox Populi xëy nag bi nga xam ne société civile bi tey ji ci àjjuma ko amal ca place de l'Obélisque ndax dina réussir ndax nit ñi danañu génn loole la Vox Populi xëy di laaj waaye laaj na beneen laaj nee na tamit suba ci samedi ji 31 décembre concert de casserole xam ne coalition Yewwi Askan Wi ñoom Ousmane Sonko woote nañu ko est-ce que concert de dina réussir loole tamit bokk na ci li bi di Vox Populi maanaam xëy di laaj yéen gi di Walf Fadjri nee na la nation bu mi suba ci samedi ji waaye concert de casserole bi tamit suba ci samedi ji la journal bi ni mu ko tuddee mooy la nation contre concert de casserole waaye nag yéenekaay gii di l'info ak mandat ñu xëy fekk fa Mouhamadou Lamine Massaly muy wax ci de casserole bi xam ne coalition Yewwi Askan Wi nam nañu ko amala nee na nag loolee c'est scandale irresponsable irrespectueux te nag Sénégal mérito wul lii yéenekaay gii di La Tribune ñu xëy fekk fa Amsatou Sow Sidibé moom nag nee na lu jëm ci rapport Cour des comptes bi ministre de la justice warutoon a xaar ñu koy saisir moom ci boppam bi rapport bi génnee moo waroon a autosaisir moom professeur Amsatou Sow Sidibé lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall ne wërta présenté wu ci atum 2024 lu jëm ci wàllum bonne gouvernance professeur Amsatou Sow Sidibé nee na bu ko kenn tudd ci réew mi ndax le pays va mal ci lu jëm ci ni nga xam ne moom la ñu yore alalu réew mi yéen kaay gi de la sa ñu xëy fekk fa professeur Maurice John ci lu jëm ci ñetteelu candidature Macky Sall nee na constitution bi lu leer na ñi la ci wax te nag lu leer kenn du koy interprété yéen kaay gi di critique ñu xëy fekk fa Maodo Malick Mbaye bu Benno Bokk Yaakaar nee na nag soo moytuwulee Macky Sall ak ñi moo àndal ñëpp dinañu ñàkk nguur gi ndax amul benn concertation amul benn évaluation tamit boo xam ne ñoo ngi koy def ci mbir mi yéen kaay gi di enquête nee na xaw ma kan moo àndul ci ñetteelu mandat bi waaye éleveurs yi ñoom ànd nañu ci ñetteelu candidature Macky Sall ndax journée de l'élevage bi éleveurs yi ñoom voté nañu troisième candidature Macky Sall yéen kaay gi di Les Échos nee na ginnaaw juróomi fan yoo xam ne Macky Sall def na ko ca diwaanu Tamba tey jii lay ñibbisi ngir nag waajal li nga xam ne mooy discours à la nation sawet ga waa tam di waajal seenu concert de casserole yéen Diouf nee nañu amuñu benn observation boo xam ne dinañu ko def ci dossier bi maître El Hadj Diouf nee na nag Ousmane Sonko amul benn sens ci lu jëm ci wàllum nuul ya ndax bëri na ay laaj yoo xam ne da see lànkoon bañ see tont ba pare tamit lànk bañ def li nga xam ne mooy test ADN bi loolee moo tax mbir mi soo muy tuulee jugement la jëm yéen kaay gi di Direct News nee na Adji dafa mel ni dafa manipuler gars yëpp te Adji Sarr est-ce que yorul nag ab bomb boo xam ne maanaam bu ko dóoree mën moom aji jamono ji moom rek moo xam lan lay jouer xale boo xam ne nee nga dañu la violer ñu gis la ngay fecc sol flotte bu ruus loolee doy na waar te confrontation bi mu doon amal ak Ousmane Sonko dafa noppi bañ a génn ay preuve lan moo xewaay ba tey ci journal bi di direct news Adji Sarr moom nee na su waxee maanaam république bi daanoo yéen kay gi de la Réveil Quotidien nee na Adji Sarr kan moo koy protéger ndax dafay wéy di sos di fen di tuumaal ay autorités yu mag ci réew mi te dara fekk ko ci yéen kay gi di réew mi Quotidien nee na Pape Alé Niang wàllum wér gi yaramam jamono na ba mara détaillé ñi nga xam ne ñooy xeex ak yelleefu doomu aadama ñoom nag ñoo ngi alerté yéen kay gi de Les na Pape médecin bi nga xam ne moo koy faj na ko arrêté traitement bi wax gaa yi ne leen jëlee leen ma ci hôpital bi yóbbuwaat leen ma ca kaso ba bu ma kenn faj nañu ma bàyyee ak sama métit lu am baax na yéen kay gi di Sud Quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu a Khalifa Ababacar Sall moom Khalifa mi fi nekkoon maire bu Ndakaaru wax na ci caisse d'avance bi ñu ko tuumaloon ba dugal ko ci kaso bi nee na jàppale na si njiitu réew mi di Macky Sall ay yoon yoon wax na ci rapportu Cour wax na nee na am na magistrat yoo xam ne dootu leen respecté wax na ci àq ak yelleefu yi ni ñu ko salfaañee ci réew mi wax na ci élection présidentielle yéene kaay gi de la témoin nee na hôpital Dantec bi nga xam ne kilifa yi santoon nañu maanaam ñu daal di fay jële ña fa nekk toxal leen ngir defaraat hôpital bi gaaw ko daaneel ko toj ko jële fa ñëpp ña fa nekkoon parax-parax googee maanaam def ko fa saraak la ñu xamul lan mooy ndeyam te ba nii amul lenn loo xam ne maanaam ma nga ca hôpital ba gaawantu gi lan moo ko fi jaroon journal bi nee na li am ba des sax mooy hôpital Dantec boobi dafa ameel ay fournisseur lu ëpp ñetti milliards yéene kaay gi di esat nee na le roi Pelé génn na àdduna témoignage yi mel ni tuleeg male journal bi di